actu du jour dañu koy doo rek jëy ju métti ci diwaanu marché Ocass bu Touba mu di ak lakk gu méttee métti tey yàggul lool benn bakkan nag rotu ca waaye jur na nag ay yàqu-yàqu matériel yu bari lool ci xayma jamono ji lu tolloo ko ñeent centre commercial ak ay cantines yu baree bari ak ay table ñoo daal di lakk nag ba jeex tàkk buñ sukkandikoo rek ci commerçant yi ay millions yu baree bari ñoo lakk ba jeex door nañ nag ab enquête ngir xam lakk gi lan moo ko sabab jamono ji nag ñuy wax ak ngeen commerçant yi jaaxle nañ lool ngir di gisa seeni alal di yàqu te mënuñ ca dara ñu wéyandi wax ci wopp ji di coronavirus nag taxoon naka dem beeg dikk bi dakkoon lool ci vol yi waaye compagnie Air Sénégal daal dinay annoncé ne dooraat nañ seen tukkib vol bi ci weer bi ñu nekk mu di weeru novembre kon naka ñi nga xamante ni ñoo di passager yi mën nañoo waajaat ginnaaw période confinement bu yàgg lool bi ñu dund te dara waralu ko lu dul mbas mi lëmbe mim réew a di covid 19 ñu wéyandi ba tey ginnaaw bi RFI naka joxe boobulee information mu di ki nga xamante ni amoo di Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf dañoo gaañu te loolee dara amu ca ba tax na nag ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Wade génn na dara dalu ko ab laaj naka daal di samp ne bu ko presse sénégalaise bi defoon ndax dina yombee nii ñu bëri nag ñu ngi ci yëy yàbbi waaye rek liñ mën a jàpp rek jamono ji moo di kii di Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ñu ngi ci jàmm bu baax te dara dalu leen ba tax rek ki nga xamante ni ah moo di El Hadji Mansour Mbaye ak ki nga xamante ni moo di njiitum réewum Sénégal daal dinañ njëkkati nag ay kàddu ngir di ñaanal ñaar ñooñee kii di Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ngir ñu yàgg fi loolu at ànd ak wér ñu daal di wax ci ki nga xamante ni moo di Tahirou Sarr ginnaaw kàddu yu ko daal di koy jëmale ci Idrissa Seck ne dafa ñàkk bu defee dil addu si am ndam nee na Idrissa Seck wul waa parti bi du waxtaan ak ñoom si dara dil la gëm te ci lay dox te li mu def nii daf koy yàqal rek waaye du ko jariñ dara te dara jaru ko fi loo xam ne riba rek la lay jural muy poste bi nga xamante ne nii yore na ko jamono jii addu samay kàddu Tahirou Sarr moo ko xamle ñu daal di wéyandi wax ci benn sëriñu daara bu doon sàkku ñetti ndongaam seeni at naka mi ngi toll si diggante fukki at jàpp fukki at ak ñaar buñ sukkandikoo rek ci l'observateur mi nga xamante ni moo joxe yooyu les xibaar sëriñ bi nag daf kaa daal di weddi ba mu set loolu waaye certificat médical eh, ci benn plaignante moo daal di firndeel ne eh, daf leen doon eh, violé janoo beeg yoon nag dinañ ko amal ca tribunal des grandes instances de Diourbel en chambre des conseils lépp loo xamante ni nag ruusandiwaat na ko jëm ci jooju le mbir 24 actu daal dinay démasqué boobu boobule di Kunkandé ci ab ojo bi mu dugal ca émission xalaas boobule ojo ba naka ndaw sa daal dina cee wax ne ki nga xamante ni moo di Kunkandé xamul dara te ñoom waa Europe sonn nañu lool ndax ki nga xamante ni moo di ndaw soosule nee na Kunkandé daf ko triandé lu tolloog cent quinze mille ne ko mu jënd li nga xamante ni moo di sondeel taal ko ba mu jeex te ñoom foofa seeni sondeel du gaaw a jeex te loolu yëpp nekkul dara lu dul ay njublang ak ay tappale te nee na xaalis bi ñu ko yónnee du ko def dara lu dul di ko jëndee xeesal ak di ko naanee li nga xamante ni moo di sàngara du samay kàddu naka ndaw soosulee moo ko daal di xamle ca émission ndoy baan boobulee di xalaas lii rek moo fi gënoon fës ami internet yi dig daje lay doon ba ëllëg ak jàmm